asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi may seetaan yëpp ak ni may déglu di leen gërëm yéen itam ci occasion bi ngeen ma jox di wax ne tey rek ñu ngi fi daje ci atelier boo xam ne commencement la rek ndax dañu jëm ci li ñuy wax benn ndaje bu yaatu ci secteur bi ñëpp toog ci kanamu ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla bi may remercier di ko saluer au passage pour wax ko suñu difficulté wax ko naqar yeeg li téye mbir mi. Fofu du am tabu dañuy waxtaan manam famille buy dajé la secteur bi ñoy daje ñepp nak liñ wax niveau central ci kaw ba ci souf kèn du des ñepp la wo ñu tok ñu ne kat tay dañoo daje nak ministre ñu ngi ni am nak ay jafe-jafe wax ci suñu plaidoyer dañoo bëgg aussi li ñu waxal ñuko président ñu def lool nak pour ñu def ko du teub rek di ko wax ni dañuy préparer ay documents yu deuguer yoo xam ne bu ko président jotee rek dina xam ne ñi kat ñu ñu taxaw lañ nag ci mbir mi loolu benn document bu ñuy wax document rapport lay doon rapport bi day am plaidoyer ci biir ak lu ne présenter secteur bi wax jafe-jafe yi def ay recommandations jébbal ko ministre de l'éducation nationale euh, le 29 fële ca Radisson Dakar mu yóbbul ko président de la République donc tey nag lañu ñu commencé processus bi maanaam dañuy def ay ateliers yoo xam ne ndax secteur bi dafa boole secteur bi dafa boole alphabétisation boole langue nationale daara mu ngi ci mais tey du wax waxu daara tey alphabétisation rek la ak langue nationale donc financement bi dañ ko seppi def ko benn atelier parce que lu am solo la ñu jël beneen atelier def ko maanaam euh, politique yi ñu war a def ak nuñ koy saytoog yëpp mu nekk benn commission bu ñu teg nii ñu def beneen commission boo xam ne nag pour promotion des langues muy ñetti commission yoo xam ne tey commencé nañ ko war a def li ñuy wax rapport yi jëkk yi ci secteur bu nekk ci ci euh, kii bi euh, Euh, kii bu nekk euh, atelier bu nekk buñ paree nag ñu boole ko defar ko muy ñetti euh, document ñu yóbbu ko nag d'abord webinaire parce que xam ngeen nag ñu ngi ci Covid bi fi nekk nii buggoon nañ lu ëpp lii mais mënuñu ko ndax tey jafe dina am sax ñu participer ci atelier yi mais en webinaire buñ buñ buggee nag ñëpp ñëwandoo dañ koy def d'abord. xool document yi ñep war ko xool niveau déconcentré niveau central ñep war ko organisation de la société partenaires techniques et financiers les institutions tout le monde lolu webinaire rek mo ñuy permettre pour ñu mun ko valider buñ défé webinaire le 28 dañuy dem nak ci forum bi forum bi nak dafa melni webinaire bek ñoy transposé wu dem janook nak ministre de l'éducation nationale ñu bëgg ko euh fële ci hôtel Radisson bu Dakar am nañ fa salle bo xamné promettre nañ ñu dina jël ñëpp ñooñu ñëpp te dinañ respecter mesure barrière yi dinañ sol masque yi mais aussi respecter distanciation bi loolu daal ci lañ nekk ni commencé ko tey di leen gërëm aussi di leen sant asalaam